naka noonu ñàkk bu fekkoonte ne day ayib ngëneel yi yàlla wàccee ci way ñàkk yi jar ko ci lami yonente bi sallallahu alayhi mu wax ko ngëneel yooyu kon du wàcc ci way ñàkk yi te yonente bi sallallahu alayhi nee na yadxulu fuqaraau ummati ila al janna qabla aghniyaihim bi xamsati miati aam way ñàkki sama xeet wi danañu dugg aljanna juróomi téeméeri at way am yi door a dugg aljanna kon bu ñàkk doon gàcce ngëneel yooyu du wàcc ci ñoom bu ñàkk doon ayib ngëneel yooyu du wàcc ñoom wax na it ne laa ahadun afdalu min alfaqiri ida kaana raadiya amul kenn ku gën ku ñàkk su fekkee ne aj ñàkk gërëm na ñàkk gi ko yàlla teg te muñ ko waaye ñàkk ak saalit ñàkk ak ñànki baaxut ci jullit du ko def ab jullit du def loolu naka noonu waxoon na ne annaasu kulluhum mustaaquuna ila aljanna waljannatu mustaaqatun ila alfuqara nit ñëpp li ñu ngéejoo te bëgg ko di ko daw di ko reewe mooy dem aljanna di daw di ko wuti aljanna nag moom li muy def te bëgg ko mooy daw wuti way ñàkk yi wuti way ñàkk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na it ala aljanna fa wajadtu akthara ahliha alfuqara wa ala annaar fa wajadtu ahliha al aghniya nee na yër naa nee na bi ma ko yéree de yàlla wan na ma ne wan na ma li ne ci àjjana gis naa ne ña fa gën a bari wi wan wa gën a bari mooy way ñàkk waaye yàlla yërloo na ma sawara ma yër ko xool naa gis naa la fa gën a bari mooy ñi am mooy ñi am loolu nag mooy ñi am te yàlla nattu leen ci am am ndax am am dana doonum nattu am am baax na ni'mal maalu saalix fi yadi rajuli saalix yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon ëskay alal alal dal amul moroom su fekkee dafa nekk ci loxol ka mu war a nekk ci moom alal dana am njariñ danañu ci ñëw alal am ko ban njariñ la am ci lislaam ak nit bi góorlu nag gis ne yàlla da koo xañ mu muñ xañ mu muñ mu muñ ñàkk nga waaye daa war a wut loolu danañ ci ñëw te sax ñi yàlla di nattu ci am am boobu mooy ñi yàlla jox te te ñu jàpp ne am am bi dañ ko yeyoo te jëfuñ ci la leen yàlla sant nga xam ne dañuy yëg ne maanaam ñoom daal seenu rëy wala seen tolluwaay ba léegi am na am na ñoo xam ne jàpp nañu seen njàmbaar wala seeni effort wala seen tolluwaay moo tax ñu am am na ñoo xam ne da gis dañuy yedd ku ñàkk jàpp ne ak yembaree a ko xañ déedéet yembari xañewut moo tax borom bi nee na woon fa ama linsaanu isa mabtaleehu rabbuhu fa akramahu wa naama fa yaqul rabbi akramani mooy ñooñu ma wax waaw yàlla jox na ma ko dama ko yelloo ak tax mu jàpp ne lii moom war na u jombu daal waaye wa amma ida mabtaleehu yàlla daf maa doyadal yàlla def ma seetaan wuy fu ma jëm loolu la koy jàppee waaye borom bi nee na ko kalla déedéet demewul noonu li ngeen jàppee ne loolu teraanga la am ngeen ko yàlla da leen ko jox déedéet li nga jàpp ne li ngeen jàpp ne ak ihaana la it déedéet ndax li ngeen defa ëpp lool fuuf ndax yàlla jox na leen te lam leen ba mu leen joxee lam leen ca sant defoo leen ko ndax bal laa tukrimuuna al yatim wala taxudduuna ala taamil miskin kon ñooñu nit mën naa am am bi nekk nattu ci moom waaye mën naa am it am am bi nekk xéwal ci moom waaye ña nekk ëpp a gën a bari ci ngëneel liy wàcc ci ñàkk ku ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne man laqiya faqiran musliman wa sallama alayhi xilaafa salaamihi ala alxani laqiya allahu yowma alqiyaamati wa huwa alayhi gadbaan nee na ku ñàkk sama njaboot la dama ko fonk loolu bëgguma kenn ku ko doyee dal wala mu tuutal ko ba tax na képp ci yéen ku taseeg ku ñàkk nuyu ko nuyu xam ne si ne noonu boromam ak boromam xam ne si ne jàpp nañ ne nuyu wala dem lente wala jëflante moom alxani yi ku am rek lañ ko war a def boo ñàkkee dal bokkatoo ak loo baax baax waaye ndegam koo xam ne nuyoo rek ba nga war a nuyu ba ngay nuyu ku am nuyu woo boo ko tasee ku ñàkk doo ko nuyoo noonu kooku mooy taseeg yàlla ci meram kon nit ñi lu mat a seetaat la te lu mat a dem ndànk la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 واشهد ان لا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 bu ñu dikkee ci yonente bi sallallahu alayhi moom mi ma nga xam ne moom laa waxoon ne mooy al awal al batalul baris al awal acteur bu njëkk bi nga xam ne si ne moo wanee yoon tëral doxalin waxoon ne mu fiy jël ak ñàkk umara yi ñëw ginnaawam wuutu ko doxale ci aw ay aw doxalin yu bare bare bare bare am ca ñu ci gën a siiw ci ñoo xam ne ci ni kenn gënu leen a rafet aw tëralin ak nu ñu gouverner ak nu ñu indee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 mën naa koo jënde benn dërëm mën naa ci dërëm bu doon ñu ne mën na dane mën naa ci cent mille yónnente bi ne teg di déglu keneen waaye jóg nekk ko yow yónnente ba yàlla bi day man lii mën naa ci dirhama yi ne xanaa loolu mooy appel d'offre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 yor mbaalam di sànni waaye mbaal yee wuute am na mbaal yoo xam ne si li mën a jàpp bëriwut am na mbaal yoo xam ne li ñuy jàpp xel mënu koo daj kon nag waaye yëngu moom nekk ñàkk fokk nit ki nekk ci dara te liggéey nit amul dara ja ju war a jombale nit ki mu liggéey garaat wala tolluwaay wala ndombak tànk wurul nit waru koo am ba tax mu jombale boppam liggéey nit warul am xam-xam wala mu am mm, ab juddu wala fu mu toll ba tax mu war a jombaleel boppam liggéey loolu danañ ci ñëw ak jàngale sëriñ bi ak lim ñu ci wan nim ñu wane liggéey loolu yaakaar naa moom mm, am nañ kenn wëreelu ko wëreesu ko wëreesu ko nettali ab taalibe bu xam doxiinu sëriñ bi xam nan la nan la fondee ak aku jaar-jaaram ak li mu fi ba danga war a ko su la jàngal liggéey moom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 de su ko am ci euh, njuuj njaaj waaye ci liggéey lañuy ñuy amee lu dagan loolu tax sëriñ bi doon ñu wax ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wahami sàkk lu dagan farata faratala ci bépp jullit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 mën a xam li nga xam ne